seydina muhammadin wa ala man amana bihi min insin wa jinnin ila yawmi ddin xaasatan cheikhana wa wasilatana ilallahi xaadima rasulillah ahmad bun muhammad bun habiballah wa ala wakilihi adudihi l ayman cheikh ibrahim wa man tabiahuma fi xidmati rasul wa nasri wa nusrati ddin ila yawmi ddin ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy jàkkaar lool yépp di leen ziyaare ginnaaw bi nu tàmbalee ci yàlla mi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne moom àddina ak alaaxira di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax di jukkal maam Cerno Birahim boroom Daarul Muxti di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy jàkkaar lool di leen ziare ci weeru koor gi bu baax a baax di ñaan yàlla li nga xam ne moom lañ fas yéene tënk tënk bu gàtt mu nekk njëriñ ci képp koo xam ne déglu nga ko nekk njëriñ ci képp koo xam ne it seetaan nga ko ñu war a waxtaanee jëmm ju màgg jëmm ju ju jàmbaare waaye jóge ci jëmm yoo xam ne ñu ngi jóge ci jëmm yu màgg yu jàmbaare muy suñu wayjur di suñu baay sëriñ Koso Astou Lo Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Awa Balla Mbacke ibnu Maam Cerno Ibrahim balay loolu nuy nuyu nag mbokk yi nga xam ne ñooy taalibe yi aju ci moom yëpp ginnaaw bu ñu yëkkatee ab nuyoo jëmee ko ci ki nga xam ne mooy njiitul njabootam gi yëpp sëriñ Modou Kara Mbacke Koso ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Darou ti ak waa Sarsara yëpp di wax ne li nga xam ne moom mooy tomb bi ñu jël pour waxtaanee ko moo di jëmmi importance su koor gi ñu nekk ak njariñul weeru koor gi ak it ak li nga xam ne moom la suñu borom jublu ci koor ñu tënk ci tuuti ñu tëjee ko sëriñ Kosso ak li nu xam ci moom ci lu ndaw rek ginnaaw ñun comme ni ma koy waxee noonu yàlla dafa dogal ay jamonoom ñu nekk ay tuut tànk ba xam naa ne suñu xam-xam ci moom bariwut lool wante jàmbaar moom ñëpp mënuñu ko umpale koo dégg ñu ne ñëpp a ko umpale rek da jàmbaar waaye jàmbaar ñëpp mënuñu ko umpale ndax faw mu am ñu xam ay jëfam xam jëfam ju baax ak ay jaloore kon faw nu am lu nu dégg ci nit ñi ci moom lu nu dégg ci mag ñi lu nu dégg ci way jur yi ci moom ak lu nu gis ci loolu nag ñu bëggoon a jiital benn tomb muy fàttali gin koy fàttaliku xam ne fàttaliku nitu yàlla dafa am solo alxuraan bari lool lu mu def ay aaya yoo xam ne iddata aayatin wa iddata suwar yoo xam ne dangay fekk ci biir ñuy tudd ay nit yoo xam ne dañoo nekkoon ci kaw suuf doon fi jëf jëf yu rafet ba tax na loolu moo gën a waral alxuraan bari wa is ak falamma ak lamma fàttaliku rek ay jëf yu baax ak ay jëfi nit ñu baax ak ay doxalinu gaa yu baax euh, nahnu naxussu alayka naba'ahum bil haqqi looloo ko waraloon ay nit yu fi jaaroon jëfoon yu baax doonoon jàmbaar bañ na ko ba alxuraan am na sóoratul xasas loolu lépp maanaam nettali rek ay gaa yu baax yu fi jaaroon ak seen jëf yu baax rek kon waxtaane nit ku baax lu am solo la dana tax ñu bare man cee jànge yonent bi sax yàlla newoon na ko nax nahnu naqusu alayka min anbaai rusul maa nusabitu bi fuaadaka wa jaaka min hadihi alxaq wa mawida xane comme segam yonent bi sallallahu alayhi sax la la waxtaane ku baax di amee njariñ ci kanamam moom mi yàlla yoon yónni mu gën ñëpp tax yàlla sàkk ñépp yàlla ne ko danaa la waxtaanal ci ñi baaxoon jiitu la ngir nga mën a amee ci ñoom eh, eh, subutul fuaat nga mën a amee ci biir wax waaraate wa mawida xasana kon waxtaane ku baax ak fàttaliku ko ak wax ci lu am solo rawatina nag koo xam ne mbaaxam da koo jëloon jëme ko ci nit ñi ci taxawu leen ak dimbali leen ak jàppale leen te bu ñu waxee ne xayru naasi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéeyal da nga ciy gise ne nit ñi loo leen di liggéeyal li ci jiitu bokk na ci nga fexe ba ñu lekk fexe ba ñu wér ndax koo munta fexe ba mu lekk mënoo fexe ba mu wér mu nekkoon koo xam ne ku farlu woon ci fànn boobu la xam naa dinañ ci laal tuuti rek. weer wi nga xam ne nag ci la koy def mu nekk weer wi nga xam ne weeru koor la mu nekk weer woo xam ne ci la daan jëf ju baax jooju nekk weer woo xam ne ci la wuy ji woon suñu borom muy weeru koor shahru ramadan weeru koor nekk weer woo xam ne li tax suñu borom farataal ko ci ñun dafa am lu mu ñu yéene rek moom suñu boroom wax ñu ne ñu loolu ma leen yéene. loolu moo tax ma jox leen weeru koor ngir weeru koor nekk wasiila maanaam li ngeen di jaar ba egg ci loolu ma leen yéene wax ne kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum koor dafa am ñu ma ko joxoon lu leen jiitu yenn wante yéen it dama leen koy jox na ma ko joxee woon ñooñu yéen jullit ñi yéen ummatu muhammad sallallahu alayhi bindal naa war farataal ko ci yéen na ma ko farataale woon ca ña leen jiitu woon kama kutiba allazina min waaye li mu ci jublu ba tax mu farataal ko mu daat koy wax ci saasi saasi ne la'allakum tattaqun ndax ngeen ragal yàlla kon koor mar wi ak xiif bi ak téye làmmiñ gi ak téye tànk bi ak sàmm cër gi yooyu yëpp yëpp yëpp yàlla nee na lenn rek la ci jublu mooy ngir nu àgg ci ragal yàlla ragal yàlla moomu nag moo nekk loo xam ne dafa am loo xam ne mënuñu koo am mënuñu faa àgg te amuñu ragal yàlla kon koor nekk escalier bu ñu yàllay jaarale ngir ñu àgg ci loolu nga xam ne suñ ci àggul duñ mën a àgg ci li may wax nii muy dugg àjjana walla yàlla boole la ci ñi nga xam ne daf leen a jàppee ay nitam ginnaaw bu ñu nekkee ay jaam ba mu jàppee leen ñu mu moomalewaat boppam loolu ay yi da ko ci fekk ragal nekk loo xam ne yàlla wasaa'il yi tax doomu aadama àgg ci yépp mu ko koy won parce que ragal yàlla dafa nekk loo xam ne dafa am loo xam ne dafa am mbir yu bari yu yàlla di joxe yoo xam ne ku eggul ci ragal yàlla du la ko jox loolu moo tax eh, lépp lu loo xam ne mooy yóbbu nit ki ci ragal yàlla yooyu suñu boroom jàngale ko ci ay mbir yu bokkul yu baree bare bari bu ñu xoolee dangay fekk alxuraan di wax ne fa fattaqullaha wa yuallimukumullah na ngeen ragal yàlla ndax yàlla jàngal leen ndekete ragal yàlla sax mooy tax ñu am xam-xamu la duniya mooy tax yàlla jàngal ñu bi gayri wasita kon ragal yàlla moom nga xam ne moo tax mu bind koor moo tax mu farataal ci ñun koor xamal nañu ne ragal yàlla moomu mooy tax moom mu jàngal ñu moom ci boppam moom yàlla suñu borom mu wax ne digal naa leen ngeen di woor ndax ngeen ragal yàlla ragal yàlla googu nekk loo xam ne mooy wasiile bi tax nit ki dugg àjjana mu ne innal na fi jannatin wa nahar ñi ragal yàlla ci biir àjjana la ñuy dugg ci biir dexi àjjana yi fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir ñooñu ña ngay nekk ca toogaay tooguwaay yeleen yàlla sàkkal fa ñuy wax maqaadu sidq waaye ñooy nekk ca yàlla gis nga ni ko waxee inda malikin muqtadir maanaam ñooy nekk ca yàlla ci buur bu màgg bi ñoom fa la ne xam nga xam nga bu fii jànnaatin wa nahar dugg àjjana nekk ci naxar yi ku nekk yàlla mën na la koo defal te fekk kooka ragalut yàlla dañ koo defal safaa ñu ràmm ko ba mu dugg àjjana waaye ñooñu dañu dugg àjjana rek yem ci wante ñi nga xam ne nag ñoom dañoo ragal yàlla ba yàlla nangul leen ba dugal leen àjjana ñooñu dafa am leneen lu luñ ciy def leneen lu leen ci yàlla tegal mooy comme li mu wax ne lillazina ahsanul husna wa ziyaada ñi nga xam ne rafetaloon nañu ni ma leen sant ñu rafetalee ni doxalin wi nu war a doxal ci kaw suuf seen digganteeg man ak seen digganteeg samay jaam ñooñu dañuy am ajana xusna mooy àjjana foofu wa ziyaada ak ndollent lim leen ciy dollil ginnaaw bu ñu amee àjjana ba noppi kon loolu moo tax mu ne lilladina ahsanul xusna wa ziyaada muy dugg ajana léegi nag li tegu ci dugg àjjana googu mooy nekk fa fa yàlla mooy li mu wax ne eh, inda malikin muqtadir maanaam fii jannatin wa nahar la wax teg ci inda malikin muqtadir mu ñu nekk fa yàlla nga xam ne ziyaada boobu am na ñu wax ni mooy gis suñu borom eh, ci ginnaaw bu ñu duggee aljana ba noppi yàlla ne ñooñu nga xam ne am na ragal yàlla gi nga xam ne bëgg ngeen am ko rek moo tax ma farataal koor ci yéen ñooñu dañuy nekk àjjana waaye fi janaatin wa nahar fii maqaadi siddiq la ñuy nekk waaye non seulement maqaadi siddiq inda malikin muqtadir ñooñu ñoom dañuy nekk fa yàlla moom suñu boroom mi nga xam ne moo bind place bind espace nga xam ne weesu na fu muy amee place wala jamono moom ci boppam moo wax ne doomu aadama yi ñi ci ragal yàlla bu ñu duggee ajana ba noppi ña ngay nekk fii jannatin wa nahar fii maqaadi sidixin inda malikin muqtadir nga xam ne ragal yàlla gi leen di yóbbu pour ñu mën a am ajjana ak nekk fa yàlla loolu moo tax mu farataal ci ñoom koor ngir koor nekk wasiila maanaam jumtukaay bi ñuy jëfandikoo ba egg ci sainteté bi leen di tax a egg ci ragal yàlla ndax dane laallakum tattaqoon ndax ngeen ragal yàlla waaye bi mu ne ndax ngeen ragal yàlla ba noppi daf ñu wax ne ñi ragal yàlla lii laa leen di defal ñi ragal yàlla fii laa leen di yóbbu ñi ragal yàlla ñooy ñii ci man kon koor lu am importance la yi mu ci jàngale ci ci ci ci wasaa'il yi tax a egg ci ragal yàlla bari na du koor kese ba ndax wax na ne barke yi jógee asamaan sax su ngeen bëggee su ngeen ko bëggee am da ngeen di ragal yàlla ndax alxuraan ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min assama ab dëkk de suñu amee ngëm yàlla ba noppi am ragal yàlla gi nga xam ne moom laa bëgg ngeen am ko ba farataal ci yéen koor nee na dëkk bu am ngëm yàlla ba noppi ragal yàlla danaa leen may ay barke yuy bàyyi ko asamaan ubbil leen barke yuy bàyyi ko asamaan ak yuy jóge ci kaw suuf mu jëm ci ñëw kon ndekete ragal yàlla day tax a am barke yu bàyyikoo ca kaw ak barke yu bàyyikoo ci suuf nga xam ne kon bëgg ñu àgg ci am barke googu moo tax suñ boroom farataal ci ñun koor ngir ñu am ragal yàlla ba ragal yàlla googu yóbbu ñu ci am barke boobu muy li mu wax ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min as-sama mu xamal ñu ne ñu moom ñi ragal yàlla la àndal moom yàlla bu fekkoon nit ki dafa am ay juróom wala ay mbiram tànn ca yi nga xam ne ñoom la tuddee ne ñoom la féeteel mooy way ñi nga xam ne euh, mooy ragal ñi ragal yàlla masalan yàlla dana jaam ñi ñoom ñi ragal la la àndal mu ne wattaqullaha waalamu anna allaha maa almuttaqin da ngeen ragal yàlla te ngeen xam ne yàlla mi ngi ànd ak ñi ragal yàlla wattaqullaha waalamu anna allaha maal muttaqin na ngeen ragal yàlla te ngeen xam ne yàlla mu ngi ànd ak ñi ragal yàlla kon fii ci àddina yàlla nee na moom maal muttaqin fële ci alaxiratam dane ñi ñi ragaloon yàlla ba dugg àjjana ñoom fa moom la leen di di recevoir fa la ni ne moo tax mu ne innal muttaqina fii jannatin wa nahar fii maqaadi sidqin inda malikin muqtadir fa yàlla la ñuy nekk ñoom bu ñu duggee àjjana moo tax mu ne alaaxira moo gën sax ci ñi ragal yàlla parce que ñi ragal yàlla njariñul liñ defoon dëgg-dëgg foofa lay feeñee loolu moo tax mu ne wal axiratu inda rabbika wal axiratu inda rabbika xayrun lil muttaqin nga xam ne yàlla nee na alaaxira moo gën wala wal axiratu inda rabbika lil muttaqin alaaxira fa yàlla day moo gën fuuf ci ñi ragal yàlla nga xam ne ñi ragal yàlla kon yàlla day leen a préparé ëllëg ngir seen ragal yàlla googu loolu bokk na ci li mu wax ne ñoom ñi ñi ñi ñi ragal yàlla mu ne ñooñu dañoo réussir dañoo texe inna lil muttaqina mafazan xadaaiqa wa anaaban wa kawaaciba atraaban wa kasan dihaaqan laa yasmacuuna fiha lagwan wala kidaaban jazaan min rabbika ataan xisaaban mu ne ñi ñi ragal yàlla ñooñu ñoom réussit yi ñoo ko yor ñoom ñoom la defal réussite alfawz ñoom la ko jox jox leen ay jardin yu nekk biir àjjana jox leen ay eh, kaas ak ay eh, naanuwaay yu bakkane ñu di leen servi te duñ fa dégg dara lu leen naqari duñ fa dégg lenn loo xam neexu leen kon ndekete ñi ragal yàlla la may lii mu bëgg ñun jullit ñëpp ñu bokk ci tax mu nañu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lazina min xablikum laallakum tattaqun farataal naa ci yéen koor ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu ndax ngeen am ragal yàlla comme ka ragal yàlla fii lay yóbbu ñi ko def yàlla dafa yërëm umatu muhammad alayhi salaatu wasalaam boo xoolee importance su ragal yàlla da ngay gis ne ba ci aj màkka sax yàlla bu paree ngir recevoir alxaaj ji wala alxaaja ki ki ñëw aj si wala ki bëgg aji li suñ borom demandé ngir mu yore ko jëm si ci moom muy digal lim ko digal ne ko fatazawwadu na ngeen yóbbalu waaye da ko ci teg nag fa inna xayra zaadi taqwa yóbbal bi gën a baax day ci yéen ñii di dem di aji nangeen xam ne mooy ragal yàlla kon ndekete aj si sax boo koy def la taxoon mu farataal koor dafa bëgg loolu nekk ci yow nga def ko muy sa yóbbal muy ragal yàlla ci yow mi aji màkk kon ka war a aji màkka yàlla nga koy préparé ci koor gi ngir yóbbal bi mu war a yóbbaloo ci su jëmee ci boromam mu am ko muy xayru zaad nga xam ne yàlla mu ngi eh, na xayru zaad yi taqwa ragal yàlla mooy ngën ji yóbbal ragal yàlla googu nee na pour mu am ko ba buy aj si am ngën ji yóbbal moo tax ma farataal koor ngir ngeen àgg ci am ko muy ragal yàlla loolu yàlla wax ko wax ni bu dee ci bu dee bu dee bu bu bu bu bu bu aj jàllee itam événement bi ci topp mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy tabaski tabaski tamit yàlla mi ngi ñuy won ne effort bi ma leen di defloo ci tabaski effort boobu yépp maa ngi ci jublu rek ngir ngeen am ragal yàlla ngeen présenté ma document ak dossier ragal yàlla mu ni mu ni lan yanaala allahu luxuumaha wala dimaa'uha wala luxuumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum tabaski moomu ngeen di def di ko rendi deret ja cay jóge ak eh, ndawal ga ca ne mu ne amu ci lenn luy àgg ci yàlla waaye liy àgg ci yàlla mooy pas-pasu ragal yàlla bi ngeen jëfandikoo ba def ko ngir ni ko suñ borom dégle nga xam ne kon ndekete tabaski sax li ñu ci suñu boroom jublu jubloo jubloo xool muy mu xool ndax ñun ragal nan ko mu xool mu xool ndax ñun ñun suñu ragal yàlla mi ngi maag moo tax mu ne lan yanaala allaahu luxuumaha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum deret ji ak ndawal gi yëpp dara du ci egg ci yàlla waaye ragal yàlla gi ngeen ko defee mooy àgg ci yàlla kon ragal yàlla dafa am puissance su boppam bu yóbbu mbir ci yàlla dafa am puissance su boppam buy tax mu ñu nangul nit mbir fa yàlla loolu bokk na ci li tax yàlla sant nu koor ngir que maanaam suñu capacité ci ragal yàlla mu renforcer ko ci weeru koor ba ci ni ma ko waxee ci alxuraan sax suñu boroom da koo wàcce ngir ñu amee ci ak ragal yàlla alxuraan ci boppam suñu borom da ko wàcc uniquement pour mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñuy former pour ñu àgg ci am ragal yàlla googu wax na ko sax ne dalika al kitaabu laa ba fiihi téere boobu amul benn sikk waaye nag hudan lil muttaqin mooy njubug ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla dinañ ko pratiquer dinañ ko jëfe moom la ñuy jëfe itam mooy seen jub kon ndekete alquran yàlla amaan na beneen jagle bu mu ci defal way ragal yàlla yi ndax situé na ne hudan lil muttaqin maanaam njubug ñi ragal yàlla la am na beneen aaya alxuraan boo xam ne yàlla ma ngi cee wax ne maa ngi leen di wàcceel ay aaya alxuraan di leen ko leeral di wàcce ay kemaan rien ngir ngeen ragal yàlla wax na ko ne kadalika yubayinu llahu ayaatihi linnaas laallahum yattaquun masalan ndekete la tax mu sàkk weeru koor nee na loolu itam moo tax mu ñuy leeral aaya alxuraan yi di wàcc ay keemaan ndax dane xam nga bu dee alxuraan dane kama kutiba allazina min xablikum laallakum tattaqoon bu dee bu dee jëmmi alxuraan itam dane dane kadalika yubayinu llahu ayatihi linnaas noonu la yàlla di leerale aayaam yi nit ñi la laallahum yattaqoon ndax ñu ragal yàlla ndekk kon alxuraan yàlla dañu koy leeral ngir ñu mën a ragal yàlla ba la ragal yàlla di maye tey jii ci ànd ak yàlla ngir li mu ne inna allaha ma'al muttaqin ak li ragal yàlla di maye ëllëg ba nga xam ne ña ko ragal dañuy nekk fa yàlla ba tax mu ne innal muttaqina fii jannatin wa nahar ñi nga xam dañoo ragal yàlla dañuy nekk biir ajana ca dex ya waaye fii maqaadi sidqin maqaadu sidq la leen di yóbbu inda malikin muqtadir ñu nekk fa yàlla nga xam ne loolu lan moo leen ko may ragal yàlla ndax dana innal muttaqin fi jannatin wa nahar ñi nga xam ne day weeru koor formé na leen ban am ragal yàlla alxuraan wàccee na déglu nañ ko jëfe ko ba am ragal yàlla def nañ lii def nañ lii def nañ lii ba am ragal yàlla googu ñu ñoom fii laa leen di def lii laa leen di jox fii laa leen di yóbbu ba ci al kalimatu uh, uh, uh, al kalimatu shahaada muy al la ba ci laa ilaha illallah sax alxuraan mi ngi ko tuddee kalimatu taqwa baatub ragal yàlla bi loolu moo tax la ilaha illallah mu nekk baat boo xam ne dañuy ko tuddee njëgub àjjana lu ko waral mu ngi tudd ci baatin kalimatu taqwa muy baatub ragal yàlla bi moom la alxuraan di wax ne wa alzamahum kalimatu taqwa wa kaanu axaqa biha wa alaha yàlla defaloo leen ilzam ci baat bi nga xam ne mooy kalimatu taqwa kon nga xam ne ndekete baatu la ilaha illallah sax dafay baat boo xam ne ragal yàlla la lëloo la làmboo waaye dafay yóbbu nit ki ci ragal yàlla boobu bokk na ci li tax ñu tudde ko njëgu àjjana pour ñu tënk ci bu gaaw rek ñu ñëw ci nag ci biir weeru koor woowu nag jëf jooju nga xam ne moom la ci suñu wayjur woowu doon def muy sëriñ ko saastulo muy di def ay ndogu di ko yóbbu di ko yóbbul suñ Modou Awa Balla ba ba jamono ji muy dem ci suñ Moustapha Absa mi fi nekk muy dem daarul gépp ak ci nit ñi ci jaam ñi togg ay ñam ngir yàlla ak joxe ko ngir yàlla mu nekk lu rëy rëy rëy ndax joxe ñam dafa foor ci yàlla ba nga xam ne yàlla dafa bëgg kuy jox ñam ba di ko jox sax ki nga xam ne bokk leen gëm ngëm yonentu yàlla Ibrahim dafa amoon benn bis mu am gan goo xam ne xam naa gan gi gëmul yàlla daal mu togg añ wala ñu togg teg añ di waaj a lekk gan gi sukk te waxul bismillaahi mu ne ko li ma lamtu basmil lu tax waxoo bismillaahi mu ne ko ana lam umin bi wujudillaahi aslan man gëw ma ne yàlla lu existé la daal moo tax waxuma bismillaahi ibrahima ne ko jógal bi mu bi mu jógee suñ borom yebal sayidna jibril ne ko demal nga yeddal ma ibrahim ne ko yàlla sa boroom nee na li nga def neexu ko ndax jaam boobu am na ñeent fukki at te ba mu juddoo ba léegi xam na ne gëmu ko te taxul mu xañ ko lekkam ak naanam kon ndax du doo ko ndax mënoo koo dimbalil jaam boobu ci sa añ boobu muy añ benn yoon rek man mi ko sàkk ñeent fukki at gëmuma maa ko mën a bàyyi muy lekk ci sama ñam yi ak sama xéewal yow mi nga xam ne moromam jaamam nga war nga ko mën a bàyyi mu lekk ci sa añ boobu te te yàlla xam na ne gëmu ko nga xam ne joxe ñam yàlla da koo soxla ba ba ci ki ko gëmul loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi ko laajee ne ko ayul islaami xayrun islaam ban comportement islamique moo gën mu ne tutimu taama wa u salaama ala man arifta wa man lam taarif mooy ngay jox ñam koo xam ak koo xamul di nuyu koo xam ak koo xamul boo boo seetloo ñaar yi yëpp sax day indi jàmm ci ci société mooy jox ñam koo xam ak koo xamul day indi jàmm ci société nuyu koo xam ak koo xamul day indi jàmm ci société seetlu ko ci rek nit bu ngeen dëkkee te xamantewu leen nga tàmbali di ko nuyu bu yàggee rek jàmm daat fay am te lu problème am lu mu ndaw ndaw day neex a lijjanti ndax fekkoon na ngeen daan nuyoo bu bu dee koo daan jox ñam itam bu boobaa mu gën a yomb pour nga xam joxe ñam importance bi ni mu rëyee bokk na ci waxi sëñ tubaa ci joxe ñam tubaa nee na wa luqmatun tasuddu batna al jaai xayrun min al binaai alfi jaamee nee na benn nit bu xiif nga jox ko mu lekk ba suur moo gënal yàlla nga tabax junniy jumaa rawatina nag nit koo xam ne dafa woor ba ngoon mu xiif nga jox ko lekk loolu la sëñ ko sa doon def non seulement sax ñu woor wante euh, sama wajur wu jigéen daf may nettali ne ma kër sëñ koso fu mu toll mbane yi dañ ko daan teg nga xam ne euh, ngir ngir ngir ngir nit ñi di mën di xewlu nee na mbooloo yu bari dañ fa daan xéewlu fu ñu toll bi muy dund loolu man dund ma ko sama wayjur wu jigéen moo ma te suñ ko soo ku jaaxasoo woon nag sama wayjur góor la ak ñu ak moom ndax loolu mooy sabab bi tax ñu tuddee ma ko man moomu tudd man kon suñ koso ku mënoon a def li nga xam ne bokk na ci li gënal yàlla ndax junniy jumaa du caaxaan ci lislaam ku ko tabax te jox nit benn lekk benn nit mu lekk ba suur moo gënal yàlla tabax junniy jumaa loolu sëñ Tuubaa bind na ko ci Masaalikul Jinaan te loolu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani radiyallaahu anhu mas naa yéeg def benn xutba moom la ñu xutba bi gën a gàtt ci monde bi dafa yéeg ne jox benn nit mu lekk ba suur moo gënal yàlla jeexaat ci yoonu yàlla moo gënal yàlla woddu kaaba gi moo gënal yàlla tabax junniy jumaa texe ñeel na ki nga xam ne dana jox nit mu lekk ba suur kon dafa foor ndax bu ko nit ki deful du wér kon bari na ñoo xam ne fi ne ñu ngi kërt kërt ci tabaxum jumaa ak tabax nangam lu ne ñu tabax ko ba noppi ña ngay romb nit ñu xiif te nanguwuñ leen a jox ñu lekk kon xam nga ne réere nañ dëgg-dëggi li li objectifu yàlla ci doomu aadama kon suñ ko so mi ngi doon def liggéey bu am solo ci dimbali doomu aadama itam noonu ndax man bari na fu may wàcc xew-xew diine am fa ma wàcc ñu ne kii sëñ Koso la tudd su may ñibbi magum jëmm moo may dab ne ma yow de sa turandoo xettali woon na ma ci nangam wala dimbali woon na ma ci nangam wala defaloon na ma teraanga sàngam loolu nit ñi ñoo koy waxal seen bopp duma leen ko sax dañuy dégg ma tudd Koso rek su may su ma su su may dem wala ñu ne ma ah yow de sa turandoo moo ma defaloon lii wala moo ma xettali woon ci lii. ay yooni yoon yoon yoon yu bokkul ñoo xam ne sax du ñu nekk sax ay murit du ñu nekk sax ay nit yoo xam ne nii ñoo ngi moom a kon sëñ Koso euh, mi ngi doon def ci àddina jëf yu rafet yoo xam ne nit ñi ñoo ko seedeel seen bopp te jëf yooyu ku ragalut yàlla mënu ko xataa li ma la doon wax léegi ci importance su ragal yàlla ba ci tabax jumaa wala tabax jàkk sax bu ko ragal yàlla wundul yàlla du ko reconnaître moo tax jamono yonent bi amoon na jàkka wala jumaa ju ñu doon wooye masjidu diraar nga xam ne dafa amoon ñoo xam ne ñoo demoon tabax ko yàlla dane woon yonant bi bu fa julli te na nga ko toj ne ko la masjidun ussisa ala taqwa xayrun ne ko giñ naa ne jàkka ji nga xam ne dañ koo ragale dañ koo fondement yi ragal yàlla moo gën fuuf parce que lu ko waral yële dañ koo defut ngir ragal yàlla yii dañ koo def ngir ragal yàlla nga xam ne ragal yàlla dafa nekk lii tax suñu borom nangul la bañ na ko fa sax yàlla dane innama yataqabbalu llahu min al muttaqin nee na yàlla nee na ñi ragal yàlla lay nangul bu dee jëf ñoom lay nangul bu dee ñaan ñoom lay nangul te ab jàmm bu nekkee ci àddina te yàlla nangulu ko amul nekkut ci dara kilifa lu mu rëy rëy daraja te bu ñaanee yàlla nanguwu ko te bu bu jëfee yàlla nanguwu ko loolu du kilifa kon lii tax a àgg ci yàlla nangul la muy ragal yàlla loolu moo tax yàlla farataal ci ñun woor ba ci biir koor googu sëriñ koso di ci tànn li ci ëpp solo muy fexe ba ñi wooroon di lekk ba suur ba taxoon muy fàggu ndog yooyu di ko def li muy liggéeyale borom daaru di ko jébbal way juróom sëriñ Modou Awa bàll ba ni mu ko doon joxe sëriñ Moustapha Absa ba ni mu fi jógee moom radiallahu anhum ajmain mu nekk loo xam ni nag war nañ cee jànge eh, lu bare war nañ cee tirer ay leçons yu bari rawatina ñun ñi nga xam ne ñun ñooy génération bi nga xam ne ñoo fi ñoo fi ñoo ñoo ñoo ñooy toll ci war a xàmmee fi mu ne war a ràññee ci ci àddina di ñaan yàlla eh, seen jikko yu rafet yooyu ak seen jikko yu baax yooyu nga xam ne moom lañ jële woon min aj daadina ci suñu maam yooyu jikko yu tedd yooyu ñu wàll ko ba ñun tamit ñu wàll ko ñeneen comme li may wax ne ndax diine kat diine jokk jolaate la diine dafa mel ni benn birig boo xam ne mason yi dañoo taxaw di ko aj ci kaw kii jël ko jox moroom ji kee jël ko jox moroom ji kee jël ko jox ko moroom ji ku ci ne war ngaa rusa doon yambar moo xam ne birig bi ci yow lay wadde ci suuf kon ñun dañ ko joxante ba mu yegsi ci ñun comme ni ko Sëñ Tuubaa waxee ñu nit dañ ko war a téye téye bu rafet fexe ba teg ko ci ay loxo buñ ko dee rek suñu jaan wàcc ci Sëñ Tuubaa loolu la wax dane sayidana xat awdaxal manahija liman yuridu an yakuna walija wa bacdahu warisahu saxaaba fi dalika al islaaxi ijaaba wa anhum fi itibaaci albaari masaa'iqu tasawufi al axyaari walan yazaalu yataaqabuuna li wa yatawaarasuuna dégg nga waxeen wi mu ne ngir mi ak yoon wu baax wi yonent bi salaa na ko wa bacdahu warisahoo saxaaba ginnaaw moom yonent bi salaa saxaaba yi donn nañ ko ci fi dalika al islaaxi bil ijaaba ci def lubaax googu ak rafetal googu wa naaba anhum fi tibaail baari yi masaa'iqu tasawuf fil axyaar nee na loolu saxaaba yi nekkoon sëriñi tasawu yi ñoo ca doon saxaaba yi ñoo leen ca wuutu di ko def nañ ko doon defe mu ne ñoom ñooñu nag walam yazaalu yataaqabuuna li yuslixu wa yatawaarasuuna mu ne juguñu fi mukk di ko paasante di donnoonte wala walam yazaalu yataaqabuuna li yuslihu wa yatawaarasuuna musuñoo dañ ci di ko joxante ngir defar nit ñi di ci donnante loolu moom moo am ba yegsi ci ñun ñu jële ko ci suñu baay yu tedd yooyu di dégg seen jikko yu baax yu rafet yi ñun loolu moo ñu war nu ne ci góorgóorlu ci ba teg ko ci ay loxo ba sunu fi jógee xam ne ñun suñu jaan wàcc na buñ ko tegee ci ay loxo rek suñu jaan wàcc na ndax mag ñi ñu ko indil ñoom seen jaan wàcc na tilka rusulu xad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum yàlla dane yonent yaa ngoog gaa yu baax yaa ngoog ñoom la ñu jëf ñoo ko moom jëf nañ ko ba noppi yéen nag yéen a fi des wala kum ma kasabtum wala tusaluna ma kuntum taamaloon yàlla nee na dinaa leen laaj li ngeen def kon liñ ci war a jàngatee mooy xam ne kat amoon nañ ay kilifa yu baax xamoon ne amoon nañ ay royukaay yu baax yoo xam ne taxawu dunduk doomu aadama da leen a ñor bu demee ba taxawu doomu aadama bu xiif gënal ko jumaa jooy tabax wala looy tabax ci ci ci wàllu diine kon taxawu dundu doomu aadama dafa ñoroon suñ borom te loolu ci la sëñ Kosso nekkoon kii naan la moo ma jëlee ca kaso ba moo ma génne kee la moo ma fayaloon samay bor kee la ba ma so ba ma jaaxlee kee la ba ma lii kee naa la ba ma laa ba ci fii ci Géejawaay ci quartier Cheikh Wade seen jumaa ja fa nekk sëñ Kosso moo joxe ciment bi ko fondation woon te doo toog fenn ba dégg dégg ko xanaa ña fa nekk ñoom ñoom wax ñu ko te loolu man témoin laa ci ak sama famille ndax sama rakk yu jigéen la ñëwoon tudd si mag ñi xamal ko ne fii dañ fee naal jàkkate dara yembagul mu ne leen na ngeen yónnee dinaa joxe temps de tonnes ciment yoo xam ne ni moom mooy tàmbali léggéey bi boo demee tey jii ci quartier Cheikh Wade jumaa jàng fa ñu koy wooye jumaay Njolofeen kon sëñ Koso radiallahu anhu jëfkat bu baax la woon euh, jàmbaar la woon noonu la gëme woon sëñ bi loolu moom ñeneen ñi ñoo ciy wax ci loolu maa ngi nuyu sëñ Modou Kara Koso ak njabootu sëñ Koso yëpp suñu xarit eh, suñuy ma suñuy mag ak suñuy rak rek la ñu doon suñuy mag suñuy rak di nuyuwaale itam sëñ Koso moom nga xam ne moom sama doom la ndax sëñ Koso sëñ sëñ Kara sama mag la. Eh, kon sëñ Koso maa ngi koy nuyuwaale di di rafetlu bu baax eh, jéego yi ak taxawaay bi ci wàllu communication bi di ñaan yàlla ñu def ko ay déwéni déwén di ndokkeel waa Sarsara yëpp di sàkku it ñu ñaanal ma nag di leen xamal ne wax dëgg yàlla. seen way jur bàyyi na fi woy wu rafet rafet woo xam ne wax dëgg yàlla xanaa way wu siiw la ñuy wax waaye ku ko gën a rafetle way amu fi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.